bismillahi rahmaani rahim xaala saydina imaamillahi mahdil muntazar sallallahu alayhi wa sallam wala maala dunya fa takaasaro xayral axirati huwa allazi yurisul ni amal muabada wa yi sunub sang tey sangub mbindeef yëpp seydina limaamu sallallahu alayhi wa sallam nee takaasaru bu ëppalante maala dunya lii alalu àdduna fatakaasaru na ngeen ëppalante xayral axirati yiwu àllaaxira huwa lazi ndax yiwu àllaaxira booba yóoru si mooy danale nixmal muabbata xéewal ya nga xamante ni dafay sax ci ka nga xamante ni aji am xéewal yooya la wa darajatal uliya moo lay jox daraja ja nga xamante ni da tiim mboolem say nawle li ñu seydinaa limaamu alayhi salaam di jangal fii moy aduna la borom bi subhanahu wa taala waxon ni amul kep kenn si yéen ko xamanteni lan kay jox satisfaire nako ludul ni dana jema a ak di dajale ak di jema ut ay pexé ngir lola di gëna yok waye waaye am len rek yam ca lola ni lima ma defal kat doyna ma seuk ah yalla neena lolou du am li ñuy muccal nag mooy ñu bañ di ëppalante alalu àdduna alalu àdduna nag boo ko tënkee ci xaalis rekk wallaay dangay daanu fii jamono tollu nit ñi lépp loo xamante ni yàlla dénk na leen ko rek te seeni moroom amuñu ko ña koy ëppalante ëppalante gi nag tey bu fekkoon dañu génn di ko jaayi jàmburi sax ñu mën a wax waaye lu fës la lu siiw la ci biir kër yi tey kër yi amatul jàmm yi si ëpp boo ko càmbaree dara waralu ko lu dul macha allahu ëppalante alal da ngay gis bàyyi joo xamante ni nekk na ak ay doomam ci biir doom yooyu seen situation bokkul kii am na ki amul même bu kële am ki am bu jéemu la ëppalante ay magam walla ay rakkam walla ay jigéenam si di leen wan ni kat man maa am lii yéen amoo leen lii man maa moom lii yéen moom moo leen lii parent ya mu nekkal ñoo koy influencer sa la lu nit laal rek ñu ni bàyyil diw moo ko moom lu nit di def itam ñu ni bàyyil diw moo ko war a def bu dee benn cër la léegi dañuy xañ ñëpp jox ko ko moom moomu takkal ko garaat yoo xamante ni yeggu fa ba moom mooma day mujje beew di wane ni maa fi moom lii maa fi def lii maa am lii kon lii du mbir moo xamante ni dañu koy tënk ndax societé bi ñu nekk tey lii la ñuy dund boo ko yaatalee itam day daj si mbokk gi dangay gis ci biir mbokk situation ya macha allah du demee noonu waaye ñi nga xamante ni ñoo tanele au lieu ñu dimmali seeni mbokk waaye ña ngay fexe fu ñu toog rekk naan man day am naa kër man day am naay oto man day am naa yére nangam ak nangam te diw ak diw ak diw day amu ko. te yow kat sa alal jooju la yàlla jox te nga nekk si biir famille ba tane fa du lu dul pour nga dimbali leen am na ñoo xamante ni tey am naan ay opportunité pour jàppale ñi nga xamante ni ñoom la ñu nekkal te bokk ak ñoom deret waaye duñ ko def de fu ñu nekk rek dañuy wane ni mankat kat famille bii man maa fi ëppale nangam famille bii man maa fi am nangam famille bii man maa fi doon nangam te loola boo xoolee ba si biir ak échec la ndax li nga am li nga mën li nga xam bu yemee ci yow kese. macha allah bis boo tëlee rek di nga xam ni yaataloon ka ba ñëpp mën a jariñu sa loola ndax ëllëg ñu mën laa delloo loola moo ëpp njariñ la ngay def kon ëppalante alal gi feeñ na ci kër yi feeñ na ci mbokk gi waaye feeñ na itam ci géew yi nga xamante ni nit ñi ñi ngi koy bokk boo demee tey si ñi nga xamante ni dañu am ay cër am ay nombal tànk si dëkk bi foo Moham moo xam ministre la moo xam député la moo xam président la moo xam lu mu mënti doon képp kenn si ñoom rek ma ngay wane ni man maay diw dama am mbalaanu kiiraay te nit ñi amuñu ko lu ma neex laa war a wax lu neex laa nar def xoolal tey ñi nekk si pencum ndaw mi muy assemblée nationale dafa ñoom seen muy deuxième bi dafa ñoom lañ yor ndax biñ dee laaj man suma juumul dañ ni woon kàddu askan wi la ñuy laaj askan wi nag ban leen joxe seeni kàddu ñoom ñu am kiiraay ëppalee ka askan wi nekk fa di xasante di saagante ak a xeex ak a xuloo kenn ku nekk nag di wax la nga xamante ni say intérêt personnel la jël askan wi isolé leen respecteetun leen faaleetun leen sóoraaleetun leen ci dara lu dul ni kenn ku nekk yaa ngay wane ni man kat ñun ñoo moom minorité bi ñun ñoo moom lii ñoo moom laa kon ëppalante bi alal bi itam ma nga nekk foofu ndax ña nga xamante ni ñoo moom majorité bi sa assemble ña ngi koy jéem a ëppalanteeg ñeneen ñi bu fekkee ñoo tolloo doole itam kenn ku nekk yaa ngay xool sa kàddu noo koy ñagasale ngir jéem a humilier ñooñu ñëpp kon ëppalante alalu àdduna si ñuy yóbbu moo baaxul ndax boo demee ba gis ni nit ki yaa ko ëpp alal da ngay jàpp ni toujours fi ngeen dem rek yaa ko war a gën a mën a mérité la fa war a am am na koo xamante ni tey alalam jooja muy ëppalanteeg nit ñi tax na bu ñu yeggee ci géew fu baax wala fu palaase moom rek moo ko war a yeyoo bu dee kàddu la moo ko war a yeyoo bu dee ngërëm la itam moo ko war a yeyoo moom moom itam dina fexe di minimiser ñi nga xamante ne ñoom lay dajeel ñoom lay séqal ñoom lay jëflanteel pour wan leen ni man maa am lii yéen amoo leen lii mbokk yi loolu nag muy jukko ju bon joo xamante ni ak beew la muy dikk jikko joo xamante ni mbër moo mës a dégg daanu na rek moo la daaneel ndax yàlla kat buur bu màndu la ñi mu def ñu ñàkk moo xam lan moo tax mu def leen ñu ñàkk waaye ñi mu def mu am moo xam lan moo tax mu def leen ñu am dafa am benn bés benn imaam bu mas a tarde am benn dëkk boo xamante ni dañ fa jàppe woon benn waay waaju dof ngeen baal ma ci wax bi waa ji ba imaam bi tardé mu jiitu imaam bi sa minbar ba daldi di xutba ba muy xutba la mu tijjee xutbaam mooy yéen nit ñi xam leen ni yàlla moo leen bind def leen ñaari bind mu daldi leen di séddale ngeen doon ñaar mu def leen ci ñoom ci yéen ñuy ñu am mu def ñenn ci yéen muy ñu ñàkk waa ju wérul ji ten tudde ko dof ngeen baal ma ci wax bi ni ñi yàlla def ñu am lenn rek moo tax yàlla def leen ñu am mooy ñu am mooy ñu sant ko waaye ñi yàlla def ñu ñàkk lenn rek a tax mu def leen ñu ñàkk mooy ñu muñ mu ne ñi yàlla def nag ñu am mu santuñu waaye ñi yàlla def ñi nga xamante ni mooy ñu ñàkk muñuñu mag ñi nekk ci dëkk bi digle lu baax tere lu bon mu ne jug ngeen julli yéen mbooloo yi naafiq yi kon yalla nu yalla musul si jikko yi bu yagge sax da ngay dem ba yow ñi nga bokal deret bokk ak ñom askan da ngay yaakar ni yalla leen gën ndax sa alal jojja te nak inna akramakum indallahi atqakum ke gën ci minde fi moy ke gëna ragal yalla kon bu la yalla dimbalé jox la wërsek ci biir fami taxawul fami bobu nga nekkal dimbali leen dimbali leen mais tay samba allah gi bari na waaw da ngay xol tay mat senegal yi rek ndeysaan ci biir kër yi da ngay xam ñi am ak ñi amul da ngay gis koo xamante ni day solal njabootam yépp mayoo ñamu dëkkal kenn solu si muy génn di zibilé di manifester loolu heure añ bu jotee dangay xam ñi am ak ñi amul événement tabaski bu ñëwee dangay xam ñi am ak ñi amul te pourtant bu ñu ko organiser woon di dimmalante suñu biir di jàppalante loolu yépp du feeñ waaye nag tey tey li ñuy bégal mooy ñu fexe ba gis ku ñu bokkal añul wala ndékkiwul wala soluwul am na ñoo xam te ni pour ñu bëgg mooy dañuy gis seen mbokk rafle am na ñoo xam te ni pour ñu bëgg mooy dañuy gis seen i mbokk ñu leen di génn ci seeni location am na ñoo xam te ni pour ñu bëgg ndeysaan mooy il faut ñu gis seen i mbokk feebar ba tëdd ñu yéene leen ko lool ñu leen di gërëm si lu neexul yàlla di leen tudde ay sabar di len tudde ay concert di len tudde ay làmb di len tudde ay match ñu say joxe alal jurul jeex te am ño xamanteni war nañ len mëna dimbale kon ëppalante alal bi nu bayla alayhi salam di tere jëf ju bon la jo xamanteni buñu ko topé lima wax rek moy am kon yàlla nu ci yàlla muccël yokki leeri bay abdullah lu ci jub ñu xamni yàlla la bu dëngé ñu xamni jàmm matul mo doon wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman alhamdulillah